bonjour salaamaaleykum mbokki auditeur ak réew Rewmi FM daleen a jàmm seen émission li ci réew mi comme euh, ni ñu koy defee tous les jours quatre euh, sujets euh, bokk na ci vente huit mille six cent mètres carrés ci assiette école supérieure d'économie appliquée bi nga xam ne bëgg nañ koo jaay. Euh, benn euh, groupe boo xam ne mi ngi tudd certaines properties loolu waa SAES nanguwuñ ci benn yoon dinañ ko fi waxtaane euh, dinañu waxtaane itam politique ak refus déclaration patrimoine yenn autorités yi ak ak li nga xam ne rek assemblée bi nga xam ne waa benn Bokk Yaakaar seen député yi ñu ngi ko doon amal ca Saly dinañ ko fi waxtaanee dinañ waxtaanee itam immunité euh, bi nga xam ne nag médecins yi ñu ngi koy sàkku ngir ñu am lu leen aar euh, bu jafe-jafe amaatee ndax jàpp nañu nag euh, liñ leen di jàpp di leen di tëj bëri na mbokk yi loolu lañ fi waxtaane laataa ñëw suñu premier sujet Abdou Khadre nuyoo. maa ngi nuyu mbokki déglu Rewmi FM. ñu ngi lay ñu di nuyu ñu ñuy teewlu ñëpp. Ndeye Comba Moreau voilà nuyu naa auditeurs u Rewmi FM yëpp. Mm-hmm. voilà suñu premier sujet dañuy waxtaanee ci euh, benn partie université Cheikh Anta bu Ndakaaru euh, bokk ci école supérieure d'économie appliquée lu toll ci huit mille six cent mètres carrés la nguur bu Sénégal jaay euh, ñi nga xam ne ñoo di groupe Certain Properties ñu fas yéene fa def li di ay résidence diplomatique foofu ca Mermoz Sayes nag nanguwuñ ci ànduñu ci benn yoon ndax ne nañ sax. ku moyul dinañu boycotter rentrée scolaire bii di ñëw euh, le 3 octobre wala ñu boycotter lépp li nga xam ne moo di activité bi nga xam ne ñoom moo war nañ ko amal Amoro ban xalaat nga ci am. si fi ñu bëgg jaay. waaw fi ñu bëgg a <laughs> ah, euh, fi ñu jaayaat encore ah, man de jàpp naa ni warul nekk euh, surprise man sax damay laaj lan moo waral ñu bàyyi ba ñu euh, jaay ko ba pare ñu door a alerter gis naa ni Bougane Gueye Dany euh, moo soulever problème boobu ba tax na actuellement acteur de l'éducation yu jot si di wax ni foofu nga xam ne bokk na ci université Cheikh Anta mhm. bu dakaar euh, ñu bugg ko jaay mais man de jàpp naa ne warul bett sénégalais yi parce que euh, état boo xam ne dafay jaay sax hôpital xam nga hôpital moom lu ko gën a sensible wala lu ko gën a am importance mhm. ki bu fekkee dañuy xaaj hôpital mhm. euh, jaay ko comme ce qui s'est passé à l'hôpital Aristide Le Dantec te gis nga ni coow li bëri na mais du mujj fenn la ñuy def def nañ ko yaakaar naa ne ñooñu suñ ñëwaatee encore naan dafa am benn pàcc bu bokk ci université Anta Diop bu Dakar jaay nañ ko euh, pour man warul bett sénégalais warul warul nekk sax lu extra waaw pour man ku jaay hôpital du du bàyyi université parce que noonu laa ko waxee woon démb man kay euh, euh, damay wax ni waa saye si nga xam ni actuellement commencé nañ di hausser le ton pour nguur gi dellu si ginnaaw lan moo tax la question que je lan moo tax ñuy xaar ba Bougane Gueye Dany soulever problème boobu ñoom ñu door see wax lan mm-hmm. moo tax xeexuñ ko parce que hôpital la Dantec biñ koy koy jaayee ak bi ñu ko jaayee gis nga boobu ba léegi waa Dantec gi ñoom ba ñuy yuuxu sax euh, defar bi commencé pratiquement depuis presque un an ñoom ñu ngi euh, kaas naan bu ñu euh, jaay hôpital Dantec di kaas acteur ñi liggéey foofu ainsi de suite ak ñi nekk ci corps médical bi mm-hmm. mais kan man problème bi may laaj lan moo tax waa SAES e xaar ba benn Bougane Gueye Dany wax si loolu ñoom ñu doog a jóg porter le combat waaw loolu laa wax lan moo tax ñoom ils ne est-ce vraiment li ñu war a lijjanti il a fallu euh, Bougane wax si pour ñoom ñu ñu réagir mais comme li ma la ko waxee woon hôpital Dantec je pense que ñii dañuy yuuxu ba sonn rek mais état bi fi mu dëgg du fa paase du si reculer yota man je pense bien que du reculer surtout que mhm. jaay na ko ba pare je pense pas ak euh, sitting bu ñu def grève bu ñu def marche ainsi de je pense que euh, du reculer si li nga xamante ni def na ko mhm. par rapport ak jaay bi mu jaay une partie de l'université Cheikh Anta Diop bu euh, Dakar mhm. euh, état bi moom parfois moom dafa mel ni mooy état bi nga xam ne mhm. euh, wax sax du tax mu reculer mais dafay mel ni wax da koy yokk doole nu ñuy gënee wax muy gën a insister fi mu dëgg di def li muy def et puis duñ si boole wax ju bëri donc bu mhm. fekkee ñoom reculer wuñ dans yota par rapport à l'hôpital Aristide Le Dantec je vois mal ñuy reculer par rapport à ce qui se passe à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar man kay damay wax ni lan moo tax ñuy réagir euh, juste après déclaration bu Bougane Gueye Dany alors que waroon nañu alerter euh, bu yàgg bara balaa sax état bi di ko jaay. d'accord Abdou Khadre waaw dama <coughs> jàpp ne moroom moom ma ngi wax nag wax dëgg yàlla jàngalekat yi. Mhm. waaye dara mën na faa la ñuy dagg mën nañ ko dagg te jàngalekat yi euh, duñ ko yëg est-ce que tamit journaliste yi ñoom def nañ seen rôle journaliste yenn mbir yi ñu koy jàmbar dem sus ko bu est-ce que intéressé na leen mais li leen intéressé mooy. Eh, dem na faak dem na siit bu teeg demu faak nangam nangam ak sàngam sàngam yooyu Ah, ku dem suite bu te ñu wax ko. bu fi indi bul yàq débat bi. waaw non si non non bul yàq débat bu fi indee affaire Sonko affaire non xaaral ma la rek xam nga tey Jacques moom moo ne. waaw euh, jàngalekat yi nan lañ mën a xaaree bañ jaay ko ba pare. waaw il a fallu Bougane Gueye Dany wax. non loolu laa la doog a porte le combat dama li Bougane wax. waaw dama ne la li wax tey. li mu révélé noonu. Mm-hmm. Euh, du révélation yoo xamante ni sax presque mën nañu wax ne révélation la mais boo xoolee fii li ñu fi wax ni ay immeuble war a moomeelu askan bi mhm. ñaata immeuble la fi eh, la fi Sénégal moom mhm. patrimoine national état bi jaay ko mhm. ci biir xolu Ndakaaru xam nga gis ngeen ko fi benn bu dul ñaar ni eh, jàngalekat yi def ba mu ump leen journaliste yi est def nañ ko loolu laa la bëggoon a wax. Hmm. dama la bëggoon a wax naa la dafay am yoo xam ne. Hmm. mooy rôle bi ñuy xaar dëgg dëgg dëgg ci ñi nga xamante ne ñooy euh, taskatu xabaar comme li buggaan euh, li buggaan révélé moo gën. ñu topp ah mais mais taskatu xabaar yi ñu ngi révélé yeneen ak yeneen mais suite boote bu jaree ñu wax si dañ siy wax. xam hmm. mooy mooy exemple la mooy gis nga presse. du caaxaan duy kaf. te man gis nga ñu ëpp ci Sénégal yi dañ koy dañ koy café dañ koy caaxaane. ndax tey taxawaay bi mu war a am dëgg bu yëkkatee di wax rek dafa war a nekk loo xam ne dafa yitteel askanu senegal mm-hmm. mais fii ci senegal lañuy jël benn mbir moo xam ne amul bopp amul genn kalaasu ndey kuma muroo yi di si wax fii ak xamante ni tey kon yàq yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ <laughs> kalaasu ndey kumba muroo yi ça veut dire quoi waaw <laughs> d'accord dafay leer bala ngay dem léegi débat bi dootu nekk yi maag yow lay nekk de léegi retiré naa ko waaw d' accord léegi xam nga tey boo xoolee euh, li eh, li su li état bi jaay l' état bi jël bëgg koo jaay xam nga huit mille six cent mètres carrés boo ko comparé ak ñaata nangami hectare la état bi def ci ndëngate la jaay ci suuf kenn xamul nu mu toll. Mhm. boo gisee conseil national euh, de la magistrature bi ñu doon def. Mhm. ñoom sax seen thème bi ñu jëloon nañ ko porté woon mhm. ci conflit foncier yi am ci. jafe-jafe suuf ci Sénégal ak dossiers yi nga xam ne moom lañ ciy jot. mais fii tey Sénégal gii maanaam nguuru Macky Sall gi ñoom maanaam ñoom niñ bëggee suuf man jaaxal na ma ñoom seen problème bi yëpp ñoom jaay nañ sax li nga xamante ni sax moo dendee géej gi. Mm-hmm. tey problème mu boo demoon tey bande filao yi euh, fu nekk presque ñoom jaay nañ ko. Mm-hmm. quand la Clerc xam nga kuy dem bay dagg ay université di dagg euh, ay hôpital euh, di jaay. yow nit ñi di dañu jaay ba ah. amatuñu lu ñu ah. jaay nañ jaww ji ñun ñoo si des moo tax il faut xam nga ñoom damaa yaakaar ne ñoom dinañ ne nit ñi léegi bu leen jaarati <laughs> bu leen <laughs> bu leen si suuf si léegi <laughs> jaarati non dama ñoo ci des ñun ñun kay gis nga lépp lu xeetoog nguuru Macky Sall gi lépp lu jëm lépp luy ñaawteef ak ndëngate ak ñàkk leeraange ci suuf ñoom egg nañ ci njobbaxtal gi maanaam ci ci ci ci sommet bi boo xoolee tey xoolal boo demoon Mbaan euh, Cité Tobago Géejawaay Ndengleer euh, Tiwaawoon Pël fépp presque nguur gi ñoom ngar daajoo ko nañ ko aakimoo nañ ko euh, fii da ngay gis koo xam ne day nekk ci nguur gi doon doon am sax néeg bu mu luwee dugg ci nguur gi ñaari fan ñett <laughs> am ngandum ay kër ami këri këri kër maanaam gis nga moon moon tax gis nga ñii su ma gisee nit jóg di leen di défendre si ñaawteef yi nga xamante ni tey moom lañ nekk ñàkk yërëm ñàkk yërëm askan bi te tey boo xoolee danañ ko fas yéene bàyyi mu jàll lii nii. non na ba waaye nag jàngalekat yi comme ñoom nee nañu dañuy dem fas yéene dem ci ab grève maanaam boycotté ubbite gi loolu ñoom jàngalekat yi dañ ko war a dëggal ba pare étudiants yi. il faut que étudiants yi ñoom tam ñëw jàppale leen si mhm. te gis nga jàngalekat yi du seeni doom a fay jàng de mhm. wala seeni doom néew nañ fa trop ñun ñii ak ñeneen ak ñeneen la seeni doom am war a dem jàngi ji foofu mais dañoo bëgg a jël def ko combat syndicaliste yi ak état mhm. étudiants yeeg parents d'élèves yeeg jaaykatu caaf beeg ni mu surpeuplé ñëpp ñoo war a gis nga nguuru mag Sall gii wallaahi du nguuru masla du nguur goo xam ne nguur goo xam yeela la <laughs> xamuñu loolu de kon moo tax jàngalekat yi il faut que ñu jóg taxaw ñi leen si mën a jàppale ñëpp jóg jàppale leen si parents d'élèves fi jóg étudiants yi lu mu ko jaral Macky Sall na leen ko jaral ñoom étudiants yi xam ne Macky Sall wër ta jël huit mille six cent euh, mètres carrés di ko jox ab promoteur xaw ma ñu fay tabax lan. Hmm. te gis nga euh, Sénégal da ngay faral dégg Macky Sall dafa am loo xam ne kenn ñemewu ko ci réew mi. amul benn ministre bu ñemee dem hôpital Dantec na ma fay jaay nangami hectare sans autant que Macky Sall Macky Sall d'accord ko. Hmm. kenn ñemewul. dem université nga ne danga fay jël huit mille six cent mètres carrés te Macky Sall yëgu ko. Mhm. loolu moom euh, ku xam gouvernement bi tuuti moom di nga xam ne maanaam seen fukki xel xalaatu ko. Mhm. kon war a ñoo xam ne kon Macky Sall si boppam moom mooy nday mbili gi. Mhm. loolu nag mooy Macky Sall moom fonkul Sénégal yi respecté wul Sénégal yi ndax fonkutum njàng gis nga Macky Sall am fo. ci moom la fonk ndax gis nga tey xoolal gis nga stade yi ni mu gaawee <laughs> te am fo jëmale wuñu fenn xam nga la ñu jëmale fenn am njàng gis nga boo jàngee booy fo sax di nga xam fa ngay commencé ak fa ngay yem mais soo jàngut di fo doo xam fa ngay commencé ak fa ngay yem xoole université Amadou Mahtar Mbow bi 2017 la waroon a pare mais loolu dañ see woon def ay édition spéciale mais di si def di si def ay VAR mais di fàttali andiwaat projet bi te xaalis bi am na entreprise boo xam ne joxoon nañ ko ko bañ commencé ko 2017 hmm. ba léegi mënul commencé maanaam Sénégal yi bàyyi ko noonu hmm. loolu moom ren lay ubbi waaw ah, octobre kan moo ko wax ah, ci <laughs> si octobre bii lay ubbi <laughs> pare moom wax mais yow ma nga ne Macky Sall si ab moom je ne suis pas d'accord waaw non dama ne la xam nga tey non c'est que analyse foo moom foo ko teg xam nga lu tax ma ne la foo waa lépp lu ñu doon tabax lu jëm ci wàllum stade maanaam yàggut defar bi waa defar bi dafa gaaw est gis nga xoolal ñaata stade lañ fi. tey tey tey Macky Sall fekk fii fii AIBD tàggatémbe Macky Sall. waa léegi taf pare ñu am université ñu am aéroport boo. xam ñëpp xam nga tey par exemple tey université euh, ma euh, ah? Cheikh Ibrahima Niass. yi ñu université Cheikh Ibrahima Niass xam nga étudiants yi fa lañ leen mujjoon doon kii si am na foo xam ne si ay ay ay discothèque. ay nit xoola. non bëri na même université bu kii. waaw léegi c'est virtuel parce que gars yi ci ay. xam nga tey ay discothèque ak <laughs> ancien mairie. waaw bu bu bu bu Fatick. maanaam li leen dugal ci ay poq. université Amadou Mahtar Mbow. <laughs> tey gis nga Sénégal gii. boo demoon université euh, Assane Seck. mais am na fay tabax yoo xam ne. 2015 hmm. ba léegi mënul fexe fexe ba yegg Jacques. Hmm. université Cheikh Anta Diop sur peuple bi am fii ci université bi xole Gaston Berger ni mu yàqoo. ban université moo baax ci Sénégal fi ñu toll nii amu fi amul bu université bu ngeen mën a wax ni université bu baax la wala Macky Sall inauguré na fi ak université bu baax man waxuma loolu de dama ne gis ngeen xaalis bi Macky Sall du xaalis bu mu doonoo ci yaayam wala ci baayam alalu réew mi la mu ne woon 2017 la université Amadou Mahtar Mbow di pare booba léegi pare wut. 22 mais ba léegi ñoo ngi si 2022. non loolu moom lu université rek terre bi sax inauguré nañ ko fi mhm. ñaari yoon euh, léegi xam nga coowal suuf moom en <laughs> fait judduwul sax ci ci nguurub euh, Macky Sall nguurub Abdoulaye Wade ak nguurub Macky Sall quasiment ñoom ñëpp a yem lu ñu fi dégg ci ay tong-tong suuf moom euh, bëri na boo fi lim da ngay jum yow si ses bi trente et ectare la woon léegi est-ce que du une dizaine moo fa des lépp eh, dañu ko caxat caxatee jaay ko boo jëlee cité Tobago nga jël Bandé Filao nga jël Corniche Ouest bi nga jël eh, coobal kii nu mu tudd sax ndenglee rek yooyu mais yooyu yëpp ay mbiru suuf la yi nga xamante ne eh, même jam ñaajo gi nga xamante ne fi lu bees yow jam ñaajo est-ce que mun nga ñu wax ak ñan ñoo ñan nañ ñan ñoo ko jënd teer ban seen anam ñu ko jëlee ana non yooyu yëpp amul trasabilité yu ci bëri yi mujj daan tekke ngi nii tey ñu ñuy wax waxu université mais dangeen laal en fait ñaari secteur la yu nga xamante ne dafa sensible wàllu wér-gu-yaram ak wàllu njàng mi mm-hmm. comme moom moo nekk d'actualité ci euh, dernièrement comme ni ñu koy waxee yaakaar naa ñun dañu waroon sax di ut suuf pour yokk ay hôpitaux wala yokk ay université en tout cas bërëbu jàngukaay lu mooy di ko jël di ko mm-hmm. xajale di ko jaay mais man dama xamul ñun léegi xaw ma état baana baana suuf lañ yor xaw ma ñoom seen lépp ci jaayub suuf lañ ko def wala séddoo ko ci seen biir et en général da ngay xool ñan ñoo koy bénéficier mu nekk ñi nekk ci nguur gi wala ñi jege nguur gi wala ay euh, kii étranger ay investisseurs étrangers yi nga xamante ne kon ñoom ñooy ñëw ñoom la ñuy euh, ñoom ñëpp booy xool coowal suuf wala lii mu la tudd yëpp investisseur étranger wala ay ñi jege nguur gi wala ñi nekk sax ci biir en général ñoom ñoo koy euh, bénéficier wu léegi nag ñun fu ñu jëm laa xamal ni ñu ko doon waxee sànq je pense que SAES e bon man wóoruma ni forcément yeggoon nañ ko parce que ku xam syndicaliste wax dëgg yàlla euh, yenn saa yi lu seen yoon nekkul sax ñu dugg ca waxuma la li nga xamante ne daf leen concerné parce que universitaire mais bu dul SAES e sax même étudiant ci seen wàllu bopp parce que mm-hmm. lii ñuy jaay ci université man je pense que ay doomu Macky Sall fa jàngee xëy na ay doomu doomam sax duñu fa jàngee fii ak ay génération xëy na ay descendants bu ëllëgee bu ñu jógee ci bopp réew mi ñu ngi ay États-Unis ay France ak yooyu fa la ñuy tale léegi ñiin nag ba doole yi wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne ñun ñooy xëccoo université ak yooyu Ah, yëf yi ci ñun lay këpp ëllëg léegi nag coowal suuf déggoon naa ay jamono bu yàggul dara Macky Sall waxoon nag ñu xool ñu fexe ba respecter eh, strictement li nga xamante ne moom la texte yi wax ci wàllub suuf jamono bi nga xamante ne coowal ndengleer jógoon na fi ak yooyu mais tey anamu loolu yëpp lu ñu waroon waxtaanee yëf yi ñu war koo corser eh, ne se lève pas qui rek mu jaay suuf ci yan anam même bu fekkee yaa ko moom wala ay suufu maam ak yooyu sax léegi dañ ko war a teg ci yoon. Mm. du ngay jóg que coowal suuf même au delà de ces eh, ay espaces publique yi nga xamante nañ jàpp ni état koy jaay mais des fois nga dégg nit jékki-jékki rek dagg ak àlalam naan sama maama ko moomoon def ko ci ay conditions yi kenn xamul jaay ko parfois nga dégg benn parcelle ñu jaay ko trois personnes mu ñëw jur ay coow nit ñi di reyante mm-hmm. fii nit ñi di def mais xam nga Jacques li nga dégg ñaan sama maama ko moom gis nga tey ndengaleer gii suuf soosu da ngay fekk ñu koo xam ne seen maama ko occupé woon mais ñooñu même bu doon tey amuñuy këyit ni nga ko mën a yombalee Babacar Ngom Sedima boo ko ko yombalee woon waa Ndengleer waa Ndengleer jël ko ma la sax yombal mais léegi jaayum suuf ci boppam waaw le Sénégal moo yomb tellement que nit day ñëw rek naan la acte de vente signal la xam nga tey par exemple dafa am loo xamante ne nit ñi dañoo jàpp maanaam gis nga état ni muy créé la nit ay ay ay milliards dafa yomb hmm. yow boo ma daggalee ay nangami hectare hmm. ma yor sama tiitre foncier baay hmm. mais mais loolu ban banque laay dem tay ko te joxuñ may milliards xoola ay kon mi ñu doon wax ay kon mi nga xamante ni dégg naa laa la wax mais xoolal yan condition ñun ci li mu jox ay kon city waaw léegi loolu laa lay wax condition la ko joxe ñun wax rek xaw ma xaw euh, ma nag huit mille six cent hectares mhm. kan la ko état jox lan la fi ñëw def ban ngeen la ci Sénégal am lan la ci Sénégal gagné ci li mu ko jox mhm. daf ko jaayam daf ko loué daf ko yooyu yëpp ñun interrégion ñun ñun xanaa autoroute à péage bi sax ba ñu xamee ni après mille francs lañ doon xeeb ah. euh, fay yàggul ba ñu gars <laughs> yi doogay kaas ba ñu yokk ko xaw ma ñaata million mais ñun toog nañ fii at ndekete mille francs la jox xanaa xam nga boo xoolee euh, Macky Sall bi fi nii gis nga sénégalais yi euh, xaw ma dañoo bëri yërmande xaw ma lan moo xew même bu dee nguuru Macky Sall gi jóge na fi xool ko président man ko ko jànge rek si nguuru Abdoulaye Wade lii ñu leen tuumaal ñii presque lu mel noonu tuumaal nañ ko nguur Abdoulaye Wade mais bañ fa jógee ah, kay à part Karim Wade kay caxat caxate yu loolu laa lay wax nag mais après Karim nag presque dégga après Karim mi ñu fi tey après déggaatoo ci kenn gis nga même bu fi nguur gi jógee xanaa kay président bu am fulla ak fayda koo xam ne respecté na Sénégal yi ñëw mm-hmm. bu ñëwee moom au moins dina topp ñii lijjanti seen kër yi fan lañ ko jëlee ak seen alal ji fan lañu ko jëlee lijjanti leen kenn par kenn <laughs> mais wax dëgg yàlla boo fi indee nag wax dëgg yàlla ak eh, bàyyi leen campagne bi nag bàyyi leen campagne non fii kenn campagne ñu fi de kenn camp man déggoo ma tur fi en tout cas daal fii moom man tudd jaay nañ lépp yow yaa si des yow la Macky war a jaay waaw eh, man nommé guñ ko moom <laughs> décret. ñu jaaree buñ ko nommé mu noppi de buñ koy nommé muy noppi ñu jaaree ci deuxième euh, sujet bi wax ci euh, médecins yi fii ci Sénégal jamono ji seen bëgg-bëgg. Hmm. moo di ñu am immunité. loo xam ne daal problème bu amatee dina leen mën a protéger wala itam ñu amaale euh, tribunal des pairs fi nga xam ne euh, ku def faute foofu lañ lay dem àtte euh, li ni mel nag ñu ngi ko yëkkati gannaaw affaire hôpital bu Kédougou ñu jàpp ñett ci ñoom ñu ne nag teguñu ko benn yoon jamono ji sax ñu ngi wëyal seen grève ndax lu ñu bëgg mooy ñu setal wecc seen der Abdou Khadre waaw xam nga Sylvie man médecin yi ci Sénégal dafa am lu bari loo xam ne man Euh, man d'accorduma ci ak médecin yu senegal ak ñenn si ñoom. <laughs> gis nga man euh, bis ñëw na feebar naa médecin faj ma te su ma fajutoon man naa ma dee. Mm-hmm. sama doom feebar na médecin ma amoon si tiitaange médecin faj ko sama doom dem na sama jabar dem na hôpital di wasin médecin moo fexe ba mu mucc si jàmm ak salaam mu delluwaat si kër gi kon man munuma ñàkk. mënumaa ñàkk nangu solo si nga xamante ni tey ñiy faj am nañ ko loolu ñëpp kenn nattabliwul loolu waaye du ñoom ñëpp dafay am si ñoo xam ne nañ war a doxalee duñ ko doxalee correctement seen liggéey ci koor yëpp la waaye dafa am ci wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal ñun ñëpp xam nañ ne dem nga ci hôpital am malaat tiit médecin faj ko mais dem nga ci hôpital yor malaat médecin sàggane ko ba mu dee loolu gis nañ ko fii médecin yi tamit il faut ñu xam ne ñoom am nañ njariñ mais du ñoom ñoo ëpp njariñ ci réew mi gis nga ki faatu Kédougou jëkkër ji nee na moom militaire la ancien militaire la nee na moom da dem guerre pour le pays Sénégal dama ne la amul risque bu médecin di jël bu militaire bi jëlut militaire boo xam ne da ngaa gàddu say arme bàyyi sa jabar ak sa doom ne leen damay guerre xam na yow bu ñu la sa jëkkër dee na sax du la bett mais kooku fan la ko médecin ëppee njariñ amul kon médecin yi il faut ñu xam ne ñoom am na njëriñ mais du ñoom kese ñoo am njëriñ ci réew mi médecin yi nañu jéem a ñoom li ñu waroon a jéem a def mooy fas yéene xool ñiy yàq seen der ci seen biirub liggéey ñuy reconnaître loolu d'accord ne am na médecin yoo xam ne defuñu correctement seen liggéey mais médecin il faut ñu reconnaître loolu mais mënuñu tey kan mooy liggéey te doo def faute ci li ngay liggéey mm-hmm. mais gendarme yi ñoo ngi si kaso bi militaires yi euh, policiers yi ñoo ngi si kasu bi te si seen biir liggéey si la ñuy defee it faute si la ñuy defee nangam ak nangam fii ñaata jàngalekat ñoo def njombe wala dara wala sëriñu daara bi doon dóor dóor doom dóor ki muy jàngal far far bant bi mën na koo dal nangam mu doon noyyi mu dee mais ñu jël ko dugal ko ci kasu bi te pourtant xoolal jàngale ni méttee médecin il faut ñu accepter loolu te ñun gis na ñun ñëpp gis nañu hôpitaux yi boo fi demee parfois am na si ñoo xamante ni li ngay daj léegi médecin yi ñoom nee nañu dañoo bëgg euh, ñu defal leen genre comme par exemple tey bu dara amee man loolu tamit li jox loolu man d'accord naa ci loolu. Mhm. nee bu dara amee njombe bala ñuy xam ba xam ki ko def dëgg la maanaam tayeef la wala nangam maanaam concertation am magistrature bi euh, ministère de la santé. Mm-hmm. concertation am. ñu léegi pour ñu bañ jàpp kenn pour ñu ñoom ba ñuy bañ a dem grève mhm. ndax bu ñu demee grève rek problème dafay problème dafay am maanaam ñu mhm. concerté wu euh, ci seen biir xool ba xam mbir mi nan la demee comme euh, euh, tribunal militaire yi ñoom médecins yi loolu lañu bëgg man d'accord naa bu mbir mi amee xam nga tey hôpital boo demoon tey CTO tey da nga gis ñu doon am doom dee hôpital boo dem di nga gis ñu doon faju dee gis nga bu doon ku dee rek ñu jàpp médecin tëj kon médecin yëpp ci faatu mm. kon médecin yëpp a ngi ci kaso bi mais dafay am yoo xam ne mooy laaj ubbi enquête am yoo xamante ni du ko laaj ndax ndax ndax ki feebar nag ba dem hôpital war naa mën a dee mm-hmm. tey ñaata ot ñaata nit ñooy xëy di dee te doo dégg ñu ne leen ñu ne ñu ne leen jàpp nañ fa benn médecin bu duñ jàppee médecin wala ñu am ci njort bu ñaaw rek y'a problème loolu il faut que médecin yi nangu enquête euh, enquête di am ci loolu léegi état bu Sénégal bii gis nga yaafus gi état bi yaafus ci syndicat yi sénégalais yépp dañ see war a tiit état bi daal politiciens yi rek la ko opposition bi waaye xoolal yebul transporteurs yi yebul jàngalekat yi yebul ñi nga xam ne ñooy waa sante ñoom moom la état bi gën a yeb te gis nga sante gii am na si ñoo xam ne ñoom euh, presque mën nañ ne maanaam ñoom bu dee ay doomu aadama lañ sax man dina ma jaaxal. <laughs> ndax tey gis nga ñoom dama la benn benn gis nga Jacques dafa am loo xam ne kenn du ko kafe gis nga am doom ñuy programmer yàlla mooy programme tey jii ngay am doom xam nga tey am na euh, yoo xam ne boo ko amee mën nañoo ñëw ñu ne la demal ba suba mais am doom nga war a am doom tey médecin bi naan la su euh, pro jéem ko de na la suba ngay am doom loolu dafa mën a nekk. ñoom bu ñu demee euh, grève lan moo tax ñuy tëj bloc opérateur boo ko tëjee ba nit ñi nga jëlee évacuer leen jëlee leen Kédougou évacuer leen Tamba ba am ñoo xamante ni tout était ñu dee. xam mm-hmm. ne ay moor nee lañ am ñett ñi. Mm-hmm. mais loolu médecin yi il faut ñu koy xoolaat. bu ñuy dem grève dafa am waruñu dem grève gis nga même gis ñoom bu ñu leen wutalee tribunal direct tribunal d'accord naa tribunal boobu ñuy wax de. mais grève wallaahi dañ leen war a dañ leen war a xam du ngeen fi grève mhm. médecin yi. jaajëf Jacques. non en fait ci càkkuteef boobu nga xamante ñoom ñu ngi koy wax parce déjà tey décrété nañu soixante douze heures. Mhm. renouvelable teg ci. man mhm. loolu mooy li ma jaaxal. ci moment bi nga xamante Euh, pour man dañ ko waroon sax seddal lu ñu jàppoon ci xeex au moins waroon nañu am lu ñu bàyyi teg ci suuf parce que seen i naataangoo ñetti mise en cause yi dañ leen bàyyi ñu ñibbi. contrôle judiciaire wax dëgg fa yàlla mooy demal football yi demal def demal wëyee sa liggéey parce que ñun gis nañ fi ba taay gis nañ fi liberté provisoire gis nañ fi contrôle judiciaire Sénégal nu ñu koy defee mel ni bàyyi nañ la demal parce que ñi ko fi am même ay politique ñu ngi campagne ñu ngi def leneen génn ñu nekk euh, Sénégal mais ñu ngi def seen yëngu-yëngu léegi nag euh, ñoom dañuy téewoon ñi garde à ñu dem ba jenoog attekat bi ñu def leen liberté provisoire euh, def ko contrôle judiciaire parce que atteeguñ leen en réalité mm. yoon nag dafa am ay procédure loolu nag bu dee yow da nga nekk ci ab liggéey et intellectuel la ñu ñu xam yoon war nañu au moins euh, may nit ñi bénéfice boobu nga xamante ne en tout cas seen naataango xaw ma ndax pression ak déen moo tax ba yëf yi xëy na ñu saax-saaxi ko nii wala boog ñu def ko nu mu gën a gaawee bàyyi leen liberté provisoire jox leen contrôle judiciaire loolu war na mënoon tax kon ñu bàyyi euh, xeex bi mais euh, tey ñu xëyaat gën a taral mbir yi parce que début bi quarante huit heures la tey ñu def soixante douze heures renouvelable teg ci man daf ma xaw a jaaxal léegi nag ci seen sàkku teef gis naa sànq communiqué bi nee nañu tribunal ci seen biir tribunal des médecins loolu je pense que normalement war nañ mm-hmm. leen ko may parce que mm-hmm. euh, am na ci yeneen core yu bëree bëri même presse bi sax tribunal des pairs am na fi tribunal euh, des pairs boobu bu fi euh, tasu bërëb tasukaay xibaar wala benn journaliste dafay am ndëngate ñaata yoon nga fi dégg ay mise en garde wala même carte de la presse bi ñu def mhm. c'est prévu suba bu journaliste bi defee faute ñoom ñu retirer la ko yooyu yëpp bokk na ci ay sanctions yi nga xamante ne mhm. euh, ñun ci suñuy biir dinañ ko def waaye teewul nag mhm. tribunal des pairs boobu wala tribunal des médecins bu fekkee dem na ba am nga def njombe yoon bi nga xamante ne moom la fi réew mi teg ki nga xamante ne moom mooy la justice ñu koy wooye mu def liggéeyam parce que même tribunal militaire bi nga xamante ne mu ngi fi bu militaire bi ci seen biir nañ ko liggéey jëflante mais bu jëree yóbbu ci yoon yoon bële da koy ñëw jël parce que ñoom ñooy yoon bi nga xam ne moom la constitution bi reconnaître moom la ñëpp war a tënku li ñuy wax nul n'est au-dessus de la loi loi boobu la ñuy wax te ñooñu ñoo koy incarner mm-hmm. loolu il faut que ça soit clair léegi nag ñu ngi wax waxu immunité man boobu nag ci laa d'accordul wax dëgg yàlla euh, procédures gis nañ ko même ci député fii fii la euh, bon c'est vrai que ñeneen bu dee ñeneen ñi moom dañ koy yëf yi def na fi presque trois mois pour lever seen immunité parlementaire rek ñu koy traîner ba lan mais imaginel ku ñàkkale par exemple euh, euh, soxnaam ak doomam en même temps kooku nga bu ko traîner loo par exemple parce que dañu ñi dañu am immunité bu fekkee lu ñuy laaj jox nañ leen ko xoolal loolu rek nu mu war a indi ci jafe-jafe waxuma la sax euh, tiis bi ngay dund mais métit la ñuy ñëwaat teg la ak benn injustice bi nga xamante ne dama jàpp ni du yoon ni ko mhm. jili waxee sànq man ànd naa ci parfaitement mooy am na ci ay faute yi nga xamante ne eh, wala boog ay faatu yi nga xamante ne mënuñu ko teg ah, ci ndoddu euh, médecin wala sage femme wala leneen nit mun na ñëw di feebar nga def ci bindal ko ordonnance def ci li nga mën yàlla faf mu dogalee ko neneen loolu euh, à la minute qui suit nit ñi dañuy jooy seen dëj mhm. xëy na gis leneen bàyyi ko dem defi leneen mhm. mais euh, le fait que nga jàpp ni yow kenn waru laa laal alors que ñu ngi laal yeneen koor yi mhm. fi fii ñu ñu rek ñaata journaliste la ñu fi incarcéré ñaata journaliste la ñu fi euh, xañ sax liggéey wala ñaata organe de presse la ñu ñëw couper seen signal parce que dañuy def dañuy jàpp ne dañoo def faute mais loolu lu tax warul am ci médecin ñoom ñooy kan ba kenn waru leen laal man loolu moo ma jaaxal man je pense que war nañu am seen i solidarité waaw ñuy xeex ak def leneen mais nañuy bàyyi bu dara xewee surtout ka particulier comme li xew ca Kédougou ak li xewoon ca Louga ak feneen ñu bàyyi yoon def liggéeyam nañu xeex nag à manière bu jëree jël ay avocat ñoom nañu génnee seen i financement fayal ko taxaw ko taxaw njabootam si le faut mais surtout nañu bàyyi tamit euh, di défendre la diable comme ni ñu koy waxee wala surtout di fàtte sax askan wi parce que askan boobu moo leen tax a jóg moo tax ñuy waat mooy tax ñuy def leneen mais finalement yow boo jàppee ni dara amul solo wala amul lenn li nga dul défendre lu dul sa naatango bàyyi askan wi wala ñi nga xamante ni ñoo tax sax ngay fayeku loolu dama jàpp ni nekk lu voilà médecins yi lu ma leen di njëkk a wax euh, dañu nekk ñoom ci corps bu sensible boo xam ni ñëpp a ko soxla te ñun chaque jour dañuy xeex ci. Euh, lu ñu yàlla séddee di journaliste di xeex pour ñu euh, defar euh, condition de travail muy si hôpitaux yi ñu relever le plateau médical plutôt tamit mettre dans de bonnes conditions ñi nga xamante ni ñooy médecins yeeg infirmières yi en tout cas ñi nekk ci hôpitaux yi wala ci corps médical bi tey ji ñu ne nit ñi ñu ngi ñu ngi jàmbat benn négligence boo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy wax Euh, ba tey ji Doura Diallo daal di décédé euh, coow bi daal di bëriwaat affaire euh, Ndeye Astou Sokhna bu Louga gis nga coow lim mu fi juróon déjà yow nit ñi ñu ngi wax ne kii ni mu faatoo négligence la ñoom ñu ne du négligence pa ñiy féete fii ñiy féete fii ñuy défendre seen bopp comment si moment boobu nga xam ne yow askan wi yëpp ñu ngi leen di tuumaal négligence médecin yi xam ni ñoom li ñuy yor du secteur bu ñuy kii du secteur u caaxaan man dama ne santé sax kenn du ko comparer ak mm. benn secteur la santé avant tout wér yaram sax boo ko amul doo mën a lekk Sylvie euh, dama ne la comment se si moment boobu ñu leen di jiiñ ñoom naan leen dañuy négliger euh, les patients dans les hôpitaux comment se ñu euh, yor euh, secteur bu sensible noonu ñu daal di banque seen loxo ba nee nañ la fële ca Kédougou euh, bi médecin yi arrêté deux bébés faatu nañu yoo xam dañ mhm. leen waroon jëlee Kédougou transféré leen hôpital Tamba encore loolu sax dañ leen see war a plainte mhm. est-ce que yaa ngi may dégg. Mhm. askan wi di jàmbat. naan lii non néglige non assistance à am na ci exactement li am nga jékki-jékki grève nga tëj bloc bi yëpp. léegi ñu ngi soxla comme que yéen da ngeen da sa kër kër bu comme que da ngeen ñuy da ngeen ñuy jiiñ négligence voilà léegi kon dañ leen di wan dañuy def bras de fer contre yéen ñoom amuñ si droit. ñoom askan waa Sénégal dañ leen war a porter plainte ñuy jàmbat dara di si ut saafara au lieu que ñoom ñu ñëw ànd ak ñun ak état bi ñu ut ut ci solution ñuy gën a euh, maanaam ñuy gën a yokk si xar mi karaw ñu koy gën a euh, ñuy ñuy mën a def lu ñuy wax sax je m'en foutisme loolu tubaab di wax je m'en foutisme la ñuy def mm-hmm. ko nga nga daal di euh, banque say loxo ba ay ñeneen ñaari bébé encore faatu nañu parce que dañ leen doon jëlee kii. te ñoom leen war a porter plainte. dafa mel dañ koy nañ ko seen loolu maanaam dañ koo war a boolewaat encore si dossier bi maanaam dafa nekk dañ leen war a porter parce que amuñ si droit non assistance euh, à personne en danger la ñu defaat encore euh, donc euh, man sànq Jacques mi ngi koy wax nous sommes dans un pays de droit nul n'est au-dessus de la loi gis nga loi bi ñu koy tëgg amul ndey kumba nga tudd amul Jacques amul médecin nga amul avocat nga amul journaliste waaw pays de droit moom si la yam nag amul journaliste amul euh, dara maanaam képp koo xamante ni bañ nañ ko ba nul naa le droit de faire justice lui-même kenn du fajal sa bopp te tamit képp koo xamante ni def nga loo xam ni jaaduwul dafa am fu ñu lay yóbbu juger la ñun waxuñ ni médecins yi dañuy faat nit ñi tout le temps waxuñ nit kii dañ ne nañ defaraat seen toogaay parce que négligence bi si hôpitaux yi ëpp na du chaque jour la ñaata nit ñooy faatu ci hôpitaux yi au Sénégal euh, est-ce que chaque jour waaw est-ce que chaque jour dañ leen di porter plainte wala coow day na moor yoo na cas yoo xam ne nga ñëpp lii négligence moo am ñàkk a taxaw parfois sax du nekk euh, problème de matériel ainsi de suite moom moo ñu xam ne lii c'est négligence la quoi dafa mm. des maanaam mm. dafa des ñoom dañ si am part de responsable loolu même bu dul état du kenn sax maanaam man mën naa yóbbu man par exemple sama malade hôpital gis nuñ ko traité mu faatu anam bi sax leerul sama bopp ma yaakaar ni fii am na négligence wala jox nañ ko traitement boo xam ni sax ce n'est pas adéquat parfois da ngay gis koo xam ne day am euh, crise tension wala insi de suite ñu ñu piqûre ko affaire u diabète wala lool affaire bi sax parce que yooyu euh, spécialiste mën nañu si wax ba mu daal di euh, faatu succomber mais loolu man am naa droit sax attaqué leen dama bëgg circonstances yi sama malaat faatoo ñu leeral ko hmm. ñu def processus mais bu fekkee ña fa aye woon gàdd médecin yi wala yii ñi nga xam ñoom ñoo fa laale mais justice daf leen war a daan dañ leen war a yóbbu juger leen médecin ne un médecin n'est pas de la loi lay ka dañ leen war a juger ñu ngi def seen liggéey mais bu fekkee dañoo def liggéey boo xam ne ñëpp jàpp nañ lii jaarul yoon am na négligence kon ñoom war nañu dem euh, ñu juger leen xool naka lay demee dañu bëgg benn tribunal spécial pour juger leen pour couvrir leen pour ñuy mën a continuer di négliger nit ñi ci hôpitaux yi. Mm-hmm. nit yi di faatu kenn du am droit euh, traîner leen dans les tribunaux man su ma deful lu ma war waral def man dañu ma yóbbu tribunal juger ma. ah médecin bi médecin nga d'accord mais si sa liggéey mën nga def faute professionnelle dañ la war a sanctionner pour mu bañ a am pour négligence yi wàññeeku je ne suis pas d'accord ay tribunal spécial pour les médecins et, et puis immunité bi aussi je ne suis pas d'accord si immunité si lan même affaire député yi sax ay immunité lan mooy immunité je ne suis pas d' accord ñoom médecins yi ñooy kan bañ waral leen utal. immunité mais loolu xam nga loolu lu muy indi Sylvie buñ ko accordé. def leen leen neex maanaam mooy. hôpitaux yaa ngi def leen lu leen neex te dara du leen si fekk parce que boobaa dañ leen di gën a protéger te li ñuy def dañ koy continuer man dama leen respecté. yaa ngi dégg respecté naa euh, médecins yi infirmiers nekk si hôpital parce que dañuy def euh, liggéey boo xam ne sax nee lu ñu leen fay rek maanaam euh, maanaam mënuñ leen a fay quoi mënuñ leen a fay mais nag am na ñu nekk si biir corps bi di ko yàq te dama waxaat naa leen ko encore nañu defaraat seen toogaay nañu bàyyi di négliger nit yi si hôpitaux yi ñun xeexuñu ak ñoom dañu bëgg ñu defaraat secteur bi hmm. d'accord ma si immunité d'accord ma si tribunal spécial médecin bu def faute professionnelle dañ laa war a juger hmm. te nañu bàyyi négligence yi dañ ko war a sanctionner am na ñu naan dañuy euh, léegi exercer euh, le euh, man wàllu médecine fii Sénégal c'est un problème ba ñu bëri yaa ngi koy wax sànq dem nañ à France wala feneen parce que nee nañ risque la man d'accord naa que les conditions ne son pas réunies ñoom seen conditions de travail chaque jour ma wax ko fii ne sont pas réunies loolu état la ñuy pointer du doigt d'accord naa ni le plateau médical doit être relevé baaxul parce que da ngay bëgg a faj doo am jumtukaay dañ lay nga bëgg a euh, faj nit sax mais doo am jumtukaay doo am machine analyse doo am lii ak lii ak lii je suis d'accord mais faute professionnelle ñoom yi ñuy def fii négligence bi ñuy def ci opito yi man lañ ma defoon ci ogi bi ainsi de suite wala feneen gis nga boo ko defee France bu ñu la porter plainte non seulement dootoo exercer médecine ci àdduna mais danañ la sanctionner tëj la ci kaso bi carrément est may dégg donc ñoom dañoo gëmuñ Sénégal boo nee du Sénégal mm. neexul damay dem mais gëmuñ bokkuñ ci ñi bëgg a euh, defar réew mi dafa am état bi responsabilité bu mag a mag a mag bu ci mooy li ma la wax condition euh, yi non même bu dul yi recrutement bi je ne suis pas d' accord non non non jublu ma pour nga d' accord ci wala nga ñàkk si d' accord mais li ma bëgg a wax mooy gis nga recrutement dafay faral di jaar yoon boo demoon tey ci santé ma may laajal médecin yi. Hmm. Jacques bu la neexee yow sa médecin bi nga invité nga laaj ko problème mu recrutement. même même problème mu bi ñu doon wax rek kër bi ñu jëlee fii Cheikh Seck da dafa am ay ambulanciers ñoo xam ne état bi buy jël ñuy dawal ambulance day dem rek jëli ay chauffeur mhm. te du du jàng da ngay dem si mbedd mi rek jëlub chauffeur mhm. da ngay jël koo xam ne tey teg ko ci copinage ambulancier bi ngay jël ambulancier bi ngay jël sax day am expérience ci lu jëm ci wàllum faj mais doo jël koo xam ne dafa jàngi auto école rek ñëw nga jox ko ambulance recrutement yooyu ñoom yàgg nañoo dénoncé lu mel noonu mais fii ci Sénégal maroon nañoo def ne médecin yi am na mm-hmm. loo xam ne amuñu sañ-sañ di ko def di ci grève dugg di ci grève léegi nag xam nga benn policier sani wala militaire ñëw naan la man damay grève parce que lii loolu il y la sécurité de l'intégrité territoriale léegi nag man man sax xam nga Sylvie man sax lan laa d'accord forme keneen ah, man lan laa d'accordoon sax ah. maanaam ñu wax ne maanaam ñoom corps bi ñu nekk ni mu sensible ak bakkenu doomu aadama ni mu fooree ak tamit wér yaram importance bu mu am ñu wax ne dañoo def Sénégal maanaam képp kuy médecin amatoo droit grève man loolu sax laa d' accord que médecin amul droit grève waroo yore nguur gi war a joto sa salaire ainsi de suite ak ngay sacrifier ay nit bàyyi leen si lalu hôpital yi bàyyi leen si urgence ñuy faatu nga naan da ngay grève ñooñu ay criminel lañ respecté wuñ seen euh, prestation de serment ça je léegi xam nga tey loolu laa d' accord ñu def loi boo xam ne Sénégal médecin dooru fi grève <laughs> ko sànn euh, ma expliqué. waaw yii waa gaaw a am di jàpp xam nga gis nga tey. Hmm. nguur gi ñu yor nii bu médecin yi ne grève wuñ état bi mën na leen a toroxal si seeni i jafe-jafe payoor ak ci seen nekkin ndax nekkuñu nguur goo xam ne ñoom dañoo bëgg réew mi ba xam seen wareef bu doon dañoo yor nguur gu xam seen wareef nguur gu bëgg réew mi xam ne bu médecin yi takkee sagaru xonq rek ñu mën a dem faj seeni saafara au moins ñu ne kon médecin yi amu leen sañ-sañ grève ndax nguur gi du du ndax ñoom nee nañu du ñuy gis sagar yu xonq mhm. Abdoulaye wax dana sagar yu xonq Macky Sall ne du gis sagar yu xonq gis nga bu doon tey médecins yi amuñu sañ-sañ grève bëri na seen problème yoo xam ne du lijjanti ko mhm. te damaa jàpp ne nguur gi war naa lijjanti seeni i problème yoo xam ne warut a xaar sax ñu takk sagar yu xonq mhm. xam nga mbir mi ñaari mbir la bu doon day dañoo nekk dëkk. wér gi yaram moo munul xaar bu doon dëkk bu normal la normal la am na yoonu si biir normal la la la bu doon dëkk bu normal la d'accord naa ne médecin yi ñoo ko war bu normal la nekk. day day na baale ñu jàll baale ñu jàll wax bu doon war normal ñoo ko war waaw waaw eh attendez ñu ngi ci tamit non nañ si non wax nañu mais des na ay kii des na ay mais bu doon day nekk dëkk bu normal dama la médecin warul grève

ak ki fi nekkoon euh, yoroon euh, nag di Nafi ngoom Keïta euh, bindoon président Macky Sall waaye président da ko ne na ko bàyyi na ko bàyyi parce que bëggul def <laughs> déclaration patrimoine moom itam ren ji ba jamono ji bokk na ci nga xam ne lànk nañ duñ dem déclarer patrimoine Ismaïla Madior Fall ak ministre conseiller bëri na ci lu toll ci 459 ñoom nee nañ duñu déclarer patrimoine Abdou Khadre waaw xam nga xam nga tey sànq gis nga gis nga présenté euh, Sylvie gis nga prêté maanaam ki gën a ñàkk ñàkk a respecté serment mooy mooy Macky gis nga ñun dañoo nekkul ci réew mu normal dafay am yoo xam ne ci réew mu normal nga koy def mu yanu mm-hmm. maanaa tey Macky yow lii déclaration patrimoine ab loi la mm-hmm. waa léegi Badio kamara mi nekkoon boobu jamono jooju Cour suprême lànk kandaare na du ma def déclaration patrimoine te yow foofu la ñuy àtteewoo mais dama ne leen yéen ban réew lañ nekk léegi loolu mooy problème mu Sénégal ñi nga xam ne tey ñoo war a doxal yoon ah ak war a voter ay loi yoon ñoom ñoo gën a mën a jalgati yoon gën a mën a def ndëngate léegi nag loolu mooy problème. mais am na ñu mu concerné wul tamit de. non non Badio Camara dafa war a def déclaration patrimoine ndax plus de un milliard boo ko yoree war a def déclaration patrimoine. mais du ñëpp non non ah, bu dee loolu njiitu <laughs> def na day def déclaration patrimoine am. président bi hmm. day wane moomeelam xanaa xamoo procureur xanaa xamoo Jacques képp ku nekk foo xam ne jàpp nañ la dañ laa war a ger man ngaa lekk gerte yow da ngaa war a def déclaration. non la mais ci loi bi lañ la wax. waaw loi bi nga ne obligé wu ñu leen. waaw waaw léegi loi bi dama la wax benn affaire. loi bi kay euh, tudd na Badio Camara xam nga Badio Camara rek si nekku fii xam nga dégg mm-hmm. ak Ismaïla Madior Fall ak Mamadou Sow Semga. Mm-hmm. mi ñooy wax Nogos. Mm-hmm. xam nga ñoom lañ ci fi tudd. nga déclaration patrimoine ndax ñooñu même dama ne la conseil constitutionnel dañoo waroon def déclaration patrimoine maanaam ñu wax seen moomeel nan la toll loolu dafa baax ci réew ndax képp ku nekk si yenn yenn yenn yenn poste yi rek te tey ministre yi mais euh, of nag moom bañ koy voté ñëpp a ci oto yaakaar ba tas la si nit ñi am bañ ko fa député yëpp a ko voté woon Moustapha Diop la fi magistrat dem këram euh, dem bureau pour euh, enquêter ñu ko mu leen di toroxal beneen bi mooy of nag bii léegi of nag bu defee rapport am ba pare su ko jébalee procureur sax amul sañ-sañ di ko fàttali procureur waaye nag comme rapport bi maa ngi fi rapport bi maa ngi fi gis nga of nag benn liggéey laa gis pour man ñu def ko boo xam ne liir naa ko mooy rapport bi ñu def ci quatre-vingt-quatorze milliards. yow daal moom moo la. xam nga man dama ko <laughs> liir man dama ko liir ñu bind ci maanaam dañoo bind ne ki ki ki porte plainte. Mamour Diallo Mamour li mu wax ci ay ndëngate ak i njumbe ak njombe lépp ñun waa OFNAC dañu koy dëggal ba pare bind ci suuf liñ koy toppe ak nangam sangam gis nga livre boobu ba léegi ma ngi fi rapport yooyu ma ngi fi. Hmm. léegi bu fi nguuru Macky Sall jugee tamit. état yi kenn keneen ki fi ñëw dina jël rapport yooyu nga xamante ni nag moo ko def ci turu askanu Sénégal mën a topp ñooñu loolu tamit il faut ñu bàyyi si bàyyi si xel nag ñoom xanaa kay lenn ñoom ñu commencé def benn enquête ñu ne leen bu leen ko def rapport boobu bañ a génn mais rapport bu xas ba génn moom alhamdulilah léegi nag def déclaration patrimoine loolu kese du solution bi si Sénégal gi hmm. ndax am na fi ministre yoo xam ne dañuy jël seeni doom def leen ay entrepreneur ay ay ay ay nangam jël ay ay entreprise ubbi ko ci seen turu seen turu doom wala seen turu njaboot wala seen turu mbokk di am xaalis di hmm. enrichir nu mu leen neexee loolu moom moo am Sénégal gi te ñëw euh, ñooñu bañ a def déclaration patrimoine am na ay ministres yoo xam ne maanaam respecté wuñ sax délai bi nga xam ne moom lañ ko waroon def mais Sénégal daal wax dëgg yàlla du réew moo xam ne dañ fee war a nekk sax naan ay réew mi yoon ak kii respecté na yoon nangam sangam. man pour man Sénégal vraiment euh, du n'importe quoi moo am ci wàllu woowu. Mm. waaw loolu lu baax la parce que c'est bon de le rappeler moo tax sax euh, xam nga démb nekkoon na inu réew mi quotidien ñu waxaat ci déclaration de patrimoine yi nga xamante ne. Euh, ñu bëri daanaka respecté wuñu ko mais li ji li di wax na gis naa mu rek ñi nekk ci nguur gi mais même opposition parce que ñu fi yoree ndombal tànkay maire yeeg yooyu ñooñu dañoo war a def déclaration de patrimoine li mm-hmm. loi bi wax dafa ne trois mois après sa prise de fonction mm-hmm. euh, plus tard war nga ko mën a def mm-hmm. déggoon naa Sonko di ko waajal xaw ma ndax def na comme déet ji li xamoo ci yoxi xibaar <laughs> en tout cas euh, dañ ko war a def ñoom ñëpp Hmm? ñoom Ahmed Aïdara yeeg yeneen ñuy nekk fii ñu ñu ñuy denk daal ay ndombal tànk nga xamante ni li nga yor parce que dañu ko fixé quand am na yenn koppar yi nga xamante ne boo boo ko géré wala buy jaar sa loxo war nga ko hmm. mun a def ñu gis ni déjà ci loi bi man d'accord ma le fait ñu exclure ñenn ñi man jàpp ne yenn fonction yi yenn privilège boo ko amee mu am luy jaar sa loxo war nga di mën a def euh, déclaration de patrimoine parce que sax man boo xoolee Sénégal am na fi mu ko yemle te CEDEAO bi nga xamante ne bokk na ca mu am sa cër lool loolu dépasse nañ fa parce que mm. kii loi yi CEDEAO lu mu wax dafa ne même euh, boo ko waree def même say soxna sa njaboot ak yooyu yëpp war nañ ko def parce que da ngay mm-hmm. gis nañ ah. fii ñi nga xamante ne ay prête-noms yu kenn xamul nga yor alal def ci sa turu doom wala def ci mm-hmm. sa kii donc ñooñu ñëpp mm-hmm. normalement dañ ko waroon di def bu ko defee bu ëllëgee buñ lay xool yow loo ci am lu yokk ak lu wàññeeku ñu xool ko ci say doom ak sa soxna yooyu yëpp parce que yooyu yëpp euh, say entourage bu ñuy gis yooyu passeport diplomatique et député ñu jox ko seeni i jabar ak yooyu yëpp parce que ñoom ñëpp dañu gis ni euh, en réalité euh, say bien ak kii en général ñoom ñoo koy bokk wala bokk ñoom ñooy bokk ci ñu koy gérer moo tax loolu yëpp daf leen war a concerner lii dafa baax ñu koy rappeler parce que ñu fi nekk ñi ko war a def euh, bëri na. Mhm. man damaa xamul lan la loi di njëriñ fii ci réew mi dañ koy def tëgg noonu pour tëgg ñu mu nekk tentamar fii ñu mhm. fàtt nit ñi jaar assemblée def lu ci nekk yëngal nit ñi la ba pare ñu jël ko teg ci suuf wala xool ñu leen neex ñu koy utiliser ñeneen ñi ñu ñu ñu bàyyi leen man loolu laa jàpp ni euh, tegu ko ci yoon xam naa dama koy gàttal ndax wax waxte mhm. waa ngay dem <laughs> mu ngoog voilà mi ngi mi mi ngi noonu déclaration de patrimoine gis nga ñun fii Sénégal tout le temps dañuy tardeel suñu bopp si yoo xam ne waroon nañ ko dépasser bu yàgg yàgg yàgg waruñu xaar ñu maanaam dafa nekk yoo xam ni c'est élémentaire déclaration de patrimoine dafa normal si képp koo xam ni da ngay gérer ay deniers publics maanaam xaalisu askan wi surtout bu yemee si yenn budget yi euh, c'est normal ñu lay nome ministre wala DG wala je sais pas euh, nga ñëw avant ñu lay nommer ñu xool yow sa alal ji nga am nu mu toll lépp leer euh, nga pare ñu nome la nga liggéey fa cinq ans ñu wàcc la nga demaat ñu xool sa alal ji bi ngay dugg ak bi ngay génn naka la toll ñu daal di mën xool ne ah kii de tant ñu ko doon fay chaque mois ah, li yëg lii su defee li yëg lii si xaalis bi lii moo si war a des donc diggante bi bu déclaré un milliard génn génnaale quatre milliards ah kii faaw ñu càmbar ko xool ba xam am amam bi jaar na yoon jaar yoon parce Euh, parce que man je je trouve que c'est tout yooyu waruñu si nekk sax di def débat. Mm-hmm. gis nga ñi fi nekk ay ministre ay DG dañoo yab askan wi yab sénégalais yi parce que waruñu la jox benn ndomba tànk man de bu ñu ma ko defoon balaa ñu maa wax demal def man maay dem def ko. su ma suñ ma wàccee balaa ñu naan ma demal def man maay dem def ko moo tax ma ne la euh, liggéeyal sa réew dafa am solo au lieu que ngay jëriñoo sa réew euh, te loolu dafay wane ni euh, transparence amul si nu ñuy gérer réew mi mal gouvernance la que ñu bëri dañuy dugg si politique pour enrichir u génn parce que am ñoo xam ne déjà bu ñu leen di ministre wala DG dañu doon fay location amuñ sax kër gu ñu dëkk bala ñu bala ñoo génn si cinq yooyu ñu nekk ministre wala DG pratiquement dañuy nekk borom alal maanaam dañuy bëri suuf fu ne ñu ne la kii am na fii terrain am na fii kër ainsi de suite te boo évaluer salaire am ñu ko doon fay malgré avantage yi mu am bu si génnee euh, dundam ak li muy jàppale ay militant ak li muy euh, jàppale ñi ko jege ainsi de suite dalay leer ni kooku lu mu dajale dajale dajale munul am un milliard c'est impossible maanaam c'est missible donc kon ñoom dañuy foye euh, di ñu nax ba léegi c'est c'est débat ay affaire OFNAC man gëw ma sax ay OFNAC ak yooyu kuréel yoo xam ne yow rapport bi kan lañ ko jox man gëw ma ay OFNAC gëm naa maanaam waaw loolu la ko déedéet bàyyil léegi yow finalement na ko président gérer maanaam eh, boobu la war a teg ci suuf fële lu tax ñuy nëbb ñu nga ñu déclaré ba pare ñu même yow déclaration patrimoine dañu koy publier ñëpp déclaration patrimoine bu fàttee dara askan wi mu dëkkal wala waa këram na ko def kër bii mu nekk fii moom moo ko moom lu tax boolee ko xanaa xamoo ministre yi rek li ñuy ministre yi li ñuy fayeeku ministre yi li ñuy fayeeku ak député li ñuy fayeeku même caisse noire président ñu ko xam. yow est-ce que xam nga le président. gis nga gis nga Macky Sall ki xamoo ko. pourquoi loolu dafa war a leer ci constitution ni mu leeree ni dafa war a def cinq ans ci mandat ñu voté. dafa war a leer président weer wu yàlla jot. lii la ko askan war a jox. lii la mooy nekk ci kees waram. lii lii la koy kii mais président bi kese mais yow. daanaka même président assemblée xanaa xamoo tey même yow gis nga contrat yi ñu signé. wala yow nan nga mën a signé contrat ci turu sénégalais yi ba pare nga indi loi boo xam ne da nga naan lii. lu confidentiel la ah, lu confidentiel la euh, kenn waru ko génne xam ne ku ko génne sax yoon yoon yoon jàpp la. Mm-hmm. maanaam xam nga ak mm-hmm. mm-hmm. akuk naru njubadi <laughs> ma ngi commencé ngay signé contrat ci turu aw askan. na leen yéen du ngeen xam lan moo nekk ci biir. déjà Sylvie fi ma doon daanelee mooy euh, kuréel yooyu gëwuma ko administrativement d'accord naa si mais ni muy doxee d'accorduma si parce que amul njeexita amul dara lu leer amul transparence oh, nag yow rapport boo xam ne président nga koy jox lan mooy hmm. IGE président nga koy jox lan mooy cour des comptes président nga koy jox mu jël ko dugal ko ci tiroiram lu ko mu xool yu ko neex mu suivre ko yeneen ñi mu dëgg ci tànkam on a ñu cof rek non loolu laa la wax fii fii Mary Teuw Niane invité nañ ko fii nekk na fi ministre lan la wax Euh, fii la ñëw toog ci plateau bi mu ne un ministre ne peut pas être milliardaire munul nekk c'est impossible mm-hmm. Mm-hmm. dans les normes surtout que ñu lay fal yoroo tous mm-hmm. nekk un multimilliardaire tu des propriétés immobilières partout dans le pays et même à l'étranger loolu soo sàccul alalu askan wi Sylvie naka la man dañ may raconter benn anecdote Mikhail Gorbatchev bi bi décédé non nee nañ Gorbatchev mi décédé mi décédé récemment Gorbatchev en Russie mhm. dégg naa nekk na euh, njiitu réew ba wàcc bi mu wàccee amul kër kër gi mu dëkk dañ ko ko abal mhm. parce que lan la ñooñu dañuy liggéeyal seen askan même fii yow wey Senghor mi nekk premier président mun nga compter këru Senghor lu mu am dama ne la nañ këram mbasawal gët gët nekk ko voilà ay xomaat la def sax non dañ kaa war a def mais <laughs> affaire bi dafa war a am transparence Senghor voilà ñu cof xam naa quatrième sujet bi li ñu des ci minute bëriwul neuf minutes Euh, conclave euh, député matul neuf de. coalition be mm. euh, neuf laa compte de. coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom déjà ñi ngi waajal seen élection bureau assemblée nationale président Macky Sall euh, donc euh, dalal na leen bu yàggul jamono ji nag ñi ngi doon di def conclave la fa nar tukkee nag ñoom ñoo ko xam ndax ñëpp dañuy waajal li nga xam ne mooy élection bureau assemblée nationale ñu war amal lundi bii di ñëw ah waaw waaw loolu moom ah, seen yoon la nekk tamit. parce que mm. ah, li nga mayee opposition mu def stratégie mbay wax ay groupe parlementaire yu bëri loolu yëpp stratégie la. Mm. donc ñële tamit c'est tout à fait normal ñu toog lëlu seen biir. xool lu ñuy war a def lu mooy sax seen stratégie mais seen taxawaay ci biir assemblée war nañ ko rem euh, nu ñuy def ba aar seen député yi ñuy am parce que xam nga ni yëf yi ils sont presque coude à coude boo boolee l' opposition euh, toute l' opposition réunie. Mm. Euh, donc à la moindre erreur moindre faille. mun na am en tout cas seen pexe yëpp wala lu ñuy namoon euh, diriger ko assemblée nationale rawatina perchoir bi ñu daal di koy ñàkk man je trouve que c' tout à fait logique ñu toog loolu ci seen biir. ñu waxante euh, li nga xamante ne moom la ñu fas yéene def et puis am nay directives yu jógee ci njiitu réew mi Macky Sall li nga xamante dinañu ko toog waxtaanee ko parce que ni ñuy wax moom njiitu réew mi mu ngi nas ay pour jëlee député opposition munoo tamit dakkal beneen sens bi vice versa mu jógee ci pouvoir bi dem fële te loolu bu waree am musiba lay doon ci ñoom musiba lay doon ci nguur gi fi nekk ci Macky Sall surtout donc mm. li ñu am moom foog ñu aar ko ba wax dëgg yàlla li ñuy wax ay chantage ak yooyu banlieue yi Ah, doole gi ñu amatoon sax boobu ak léegi léegi boo gisee commencé nañ ko def ñu du leen ñeme wax sax dañuy génn di wax léegi parce que am nañu xam nañu li ñu yor même bu fekkee niw na mais loolu rek mën na basculer loolu lépp doxalinu réew mi sax donc euh, il faut ñoom ñu toog lalu ci seen biir bu jaree ah yokk ay privilèges yokk ay leneen pour ñoom ñu def ko ci seen biir en tout cas leen dese tamit foog ñu aar lii loolu nangu naa leen ko. Mm-hmm, waaw que ñu ngi préparer faiblesse bi ñu am <laughs> assemblée nationale naka lañ koy mën a booster wala yenn stratégie la ñuy teg man li ma waxoon démb lay waxaat tey man gëwuma ay député Benno Bokk Yaakaar xam nga sama vision si wàllum politique dafa wute loolu ak ñu bëri ni ñuy xalaatee man gëwuma ay député Benno Bokk Yaakaar euh, gëwuma ay député majorité présidentielle gëwuma ni député bi non inscrit la euh, opposition bi la féete gëwuma député Yewwi Askan Wi wallook Wallu kii xam nga lan laa gëm député Askan Wi point soo demee fële ci assemblée nationale lu soxal askan wa day ca dox hmm. lépp lu fa indi nga xam ne lii askan wi d'accorduñ ci euh, nga daal di ciy génne sa loxo boo waree voter euh, non nga def ko parce que askan wi loolu la bëgg boo waree voter oui nga def ko parce que c'est dans l'intérêt hmm. euh, du peuple sénégalais man loolu laa gëm mais quant ay préparer naka la ñuy renforcer mën a jàmbaarlu opposition bi parce que suñu lim bi c'est vrai ñoom seen majorité bi munuñ ko tuddee majorité Euh, buñ ko comparé ak yi ñu daan am mais man gëw ma yooyu même ñu nekkee ci opposition bi man gëm naa ni ñoom dañoo war a xool ci intérêt askan wi nguur gi dana indi dara ñu xam ne lii c'est pour le peuple ñu vote ko après mu jeex mais pas benn tribune bu ñu war a teg tey jii di fa xuloo di fa xiiroo di fa ŋaayo di fa jaala jaayante doole di fa def la ñuy def temps bras de fer teg fii teg fii no on n'a pas besoin de ce bras de fer réew mi dafa nekk en crise man député askan wi laa askan wi waaw man de lépp lu opposition bi man si bras de fer ak nguur gi kontaan naa ci ak benn bokk yaakaar doole ji ëpp baaxul ci Macky Sall hmm. Macky Sall neuf ans dix yi man gawuma bras de fer rek li Macky Sall toroxal askanu Sénégal leeroon na ko ne munta dem bay ba bàyyi réew mi te du am guddi yoo xam ne dana métti lool dina lett moo métti Macky Sall fi mu nii Sénégalais yi ñoo suqi Macky Sall Macky Sall amutul ay laaf gis nga tey euh, pouvoir judiciaire ak euh, exécutif Macky da yor na ko. Mhm. waaye pouvoir législatif dañ na ci loxol mag Sall. loolu moo tax doole jii ñu ko xañ ci assemblée nationale lu baax a baax la. Mhm. léegi nag ñoom li tax ñu dem sali mooy dem nax député yu ñàkk bopp yi ñi nga xam ne jëmuñu fenn noos ak ñoom foofu ci alalu askan wi jël xaalis jox leen rug gurgur leen mel ni ay xar dugal leen ci benn bus wàcc leen directement. assemblée nationale ndax xam nga wóoluwuñu leen. Mhm. xam nga koo wóolu moom doo ko doo doo xam nga xam nga sa bopp. xam nga yóbbu mhm. député mooy wan Macky Sall ko mhm. yow ñi nga am amoo si ñoom confiance. moo tax nga leen a gurgur sali neexal leen <laughs> ah bëgg leen a. andi waat nangul leen ko loolu tamit mooy ñàkk kóolute mooy ñàkk kóolute la. bàyyi leen ñu desal xam nga mooy ñàkk <laughs> kóolute léegi euh, euh, matin dugal leen ci gurgur leen mel ni ab sàmm leen buntu assemblée nationale ba ñu euh, escorté na leen dugg leen bu kenn génn bu kenn ndaw yi bu kenn def dara ndax Macky Sall ne bu leen loolu mooy ñàkk bopp Macky Sall si bopp loolu mooy ñàkk bopp vraiment mooy ñàkk bopp jërëjëf ba ëllëg incha allah ba suba ak gars incha allah merci les gars jaru ma nekkoon ci technique bi ba suba